doomu aadama nag li ma wax warta suufeel boppam parce que fi mu ne sooy seet Sénégal am na nit ñoo xam ne suufeel nañ seen bopp suufee boo xam ne dem nañ ba nga xam ne sax rabi àll yi ñoo leen gën parce que Sénégal bu njëkk Sénégal léegi lu raglu la Sénégal xamuñu woon rey Sénégal xamuñu woon soxor Sénégal xamuñu woon keñaan Sénégal xamuñu woon boddiwante Sénégal xamuñu woon ñàkk respecté mag Sénégal xamuñu woon ñàkk respecté sëriñ Sénégal xamuñu woon ñàkk respecté borom xam-xam Sénégal xamuñu woon ñàkk yërëm jigéen ju faible Sénégal xamuñu woon ñàkk yërëm xale mais ñu ngi ñàkkee kersa sëriñ si ñu ngi ñàkkee kersa mag ñi ñu ngi ñàkkee kersa xale yi dem nañ ba leen di rey ñu ngi dem sax bay rey xale yu ndaw yi dem nañ ba koo xam ne dafa jugee ba Amérique ñëw Medina Baye bi nga xam ne dañu am yaakaar ci moom ngir nu leer yi nga xam ne yàlla daf ko def ci ñoom ak ngëm ñu foog ni loolu mun na yàq ci dara ñu fekk xale bu ndaw bu jugee Amérique ñëw jàng ba mun alxuraan ànd ak baayam ñu rey ko pour benn somme bu ndaw moom dem na aljanna waaye ñooñu fan lañ jëm xam nga ñoom mënuñu mucc yeneen a ngi may dégg yéen xam ngeen ne mënu leen a mucc parce que àddina yëpp ñu ngi leen di xool te yàgg-yàgg ñu leen jàpp su ma doon yéen damay ñëw rek yeew sama loxo yi rek ñëw ne maa ngi nii comme lii kii di mu mooy dafa am benn sàcc bu bu sàcc ñu dàq ko mu ñëw ci jumaa ji ci sàppi su njëkk si fekk imaam bi ne ëlëm na likil awwaliina te mu ci sàppi su njëkk ci mu ne eh, man la ñuy wax arrière imaam bi ne su ma nut bihim laaxirin mu arrièraat mu ne kazalika nafalu bil mujrimin mu ne gars yi maa ngi jàpp nañu parce que mbiram leer na waaye ñi tamit foofu rek lañuy mujj yàgg-yàgg ci kaw loolu nag moo tax ma ne Sénégal yi nga xam ne mu ngi fi xew léegi yëpp xew fi woon waaye yàlla nañu yàlla musal rek